avec le virus. Et nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus. Nous devons apprendre à vivre. Voilà, mu ngi noonu. Euh, euh, euh, boo gisee par exemple ñenn ñi. di am li leen metti mooy ce sont ces gens de discours là qui sont des discours cohérents entre le président français et le président sénégalais xam nga ki ñu tëj mu mu tudd lan xurum kii mais tey bu ñu waxee ne Macky Sall et le délégué de quartier. de la France au Sénégal danga koy gëm parce que boo xoolee ces genres de discours ak euh, ak ak yi nga xamante ni moom la ñuy def acte yi muy posé mu méngóog ak acte yi nga xamante ni moom la Macron di jël léegi looy wax da nga naan mais kii ñun dañuy toppandoo France te waruñu toppandoo France parce que le nombre de cas qui se trouve en France ne se trouve pas au Sénégal ñun tey fi ñu toll nii fi ñu toll fi ñu toll woon ci ay ci ci ci nombre de cas mënoon nañu fi génn virus bi. d'autant plus que virus bi c'est un virus qui importé dañ ko jëlee feneen mu ñëw te bi muy ñëw xam nañu nombre de ravages yu muy créé dans le monde ñun loolu la ñu yàlla dimbalee sa à dire que bi muy ñëw fii Sénégal xam nañu déjà ñaata ravage lañ def xam nañ ñoom nan la ñuy jëlee seen seen disposition maintenant ñu def ñu def couvre-feu jóge si couvre-feu def état d'urgence ah waaw ñu def ñu def état d'urgence fi laay daaneel ñu def état d'urgence mm-hmm. ñu dëkk ci état d'urgence waxuñ ñu war ñu takk masque léegi ñu ne il faut qu'on aille vers la généralisation du port des masques ñu dem vers la génération généralisation du port des masques mais malgré toutes ces dispositions qui ont été prises da gis chaque jour affaire yi di gën a yokk affaire yi di gën a yokk waaw affaire yi mu demee ba yokku na ba jéggi dayo nga bëgg a xëy tey ñu egg ci deux mille et quelques cas nga ne yéen imam ratib bi yéen ñi nekk si jàkk yi yéen jullit yi yéen catholique yi ñii mën nañ dem église ñii mën nañ dem juma